وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين رغم أنوف الحاقدين والحاسدين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi kilifa mbokk yi may déglu gannaaw bu ma santee yàlla julli ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ali maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen niyoo di leen ziyaara di leen jox seeni wàccuwaay di leen baalu ak te di leen baal di leen ñaanal te di ko sàkku si rawatina kilifay diine rawatina sama sang sama sëriñ sama wasila ci yàlla di sayidi wa mawlaay alsharif muhammad ali haydara yal na ko yalla sàmm te lafal ko cat ak làmmeñ làkk ko fu bëddul yegg zahiran wa batinan insha allahu ta'ala mbokk yi tey may amaat mbégte ak contentement bu baax dellu siwaat ci scénario Tom et bi nga xam ne moom lañu doon dérule fan yale yépp du lenn waralu ko nag lu dul jéem a def tashwiihu suma ati chia dal di yàq dëgg-dëgg nit ñi ci tasayu dal di jaxase nit ñi ak chiit yi te alors que demeewul noonu waaye nag dafa am lenna loo xam ne daf ma neex torop ci seeni scénario mooy dañuy andi ay xadis yoo xam ne tabarakalla ma sha allah jullit ñi kenn werantewul ci xadis yooyu ci seeni weraay waaye kon ka wahaabiya bi lépp loo xam ne dañ koy wax mu doon ab ngëneel ñu jëmee ko ci imaam ali alayhi salaam te loo xamante ne ngeneel boobu ixtisaas la maanaam imaam ali bokk ko ak keneen ku dul moom moom kesee ko moom ngeneel yooyu ñoom bu ñu sañoon dañuy daal di jël yooyu noonu yépp ñu jox ngeneel yooyu seeni supérieur waaye du imaam ali moo koy am e en même temps ñi naan ñun bëgg nañ imaam ali loolu nan la mun a nekkee ngeneel bu ñu tudd ci moom ngeneel bi ak day doy waa rek ngeen ne non li non li waroon nekk ci imaam ali lu tax parce que imaam ali alayhi salaam gëdd bi ngeen jox yeneen saxaaba yi gëdd bi ngeen jox mu muawiya laa leen di wax joxuloo leen ko imaam ali imaam ali du moroom benn saxaaba loolu werantewuñu ko imaam ali alayhi salaam nafsu rasulillah ci ay xadis yu wér a wér a wér a wér te ñëw werante voilà léegi moom li muy def lan la moom waxaabit baaba Dieng ak ki nga xamante ne moom lay àndal ñoom ñaar di tom ak jëri ñu dal di andi xadisul manzila xadisul manzila mooy xadis boobu nga xam ne saydina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax naan anta minni bi manzilati haaruna min muusa yow ali yow sa dayo ci man moo ngi mel ni sa tolluwaay ci man sa martaba ci man sa maqaama ci man sa wàccuwaay ci man ngi mel ni yonente yàlla haaruna ci muusa illa annahu la nabiya baadi lu dul ne amul beneen prophète boo xam ne dina ñëw sama gannaaw donc mbokk yi bàyyi leen xel istisna bi yonente bi dafa wax ba ñëw ne illa annahu la nabiya baadi donc fii nii dinañu xam ne donc manzila bi nga xamante ne moom la saydina haarun alayhi salaam dal di amoon wàccuwaay bu mu amoon ci yonente yàlla Moussa dinañ ko jàngat xool yan wàccuwaay la ndaxam benn la wala ñaar la wala ëpp na ko parce que waxaabit bi moom nee na ñaari wàccuwaay la am mooy wàccuwaayu uxuwa ak wàccuwaayu nubuwa nubuwa bi dakk nañ ko donc uxuwa bi moo si def loolu noonu ma koy loolu mu wax noonu du eh, du dëgg ay kàcc dong la ay nar la dégg liy dëgg dinañ ko wax ci kanam incha allah taala léegi nag xadis bi nii jullit yépp feddali nañ ne xadis bu wér la demal ci saxiixul buxaari demal ci saxiixu muslim demal si kutub kutubu shiyaat yi ci xadis yi ci kitaabul kaafi bihaarul man laa yahduruhu lfaqih ak yeneen ak yeneen si ay téere ak ci ay sunan ak ay masaanid yoo xamante ne wéral nañu xadis bi wér kënn mais léegi comme que wahaabiya yi ak ñeneen ñi nga xamante ne dañoo nekk di contour tashayyu xam nañ ne xadis bi nii xadis bu ko gën a wér ci taxawal bokk na ci xadis yu gën a yu gën a wér yu gën a pour taxawal wax ni que gannaaw yonente bi bu fi jógee rek ki waroon succéder yonente bi mooy imam Ali léegi comme que xam nañ ne loolu noonu mënatuñu weddi wéruwaayu xadi wéru xadis euh, bi léegi dañuy daal di ñëw ci firi xadis bi di ko jéem ma weddi ñoom ñu daal di ne naka la chiite yi lii moom mooy seen nuqta asaasiya parce que ñoom dañoo bëgg a weddi chiite euh, yi lu ñuy wax e en même temps dal di def tashwihu sumatina ñu daal di yàq ci dëgg-dëggu chiite ñi ci société musulman bi ta alors ko jéem nañ ko ba sonn mënuñu ko Baba Dieng dëng si tuuti dëng da nga tuuti kooku ngay daldi di tudd sama sëriñ bi ngay dal di tudd saa ne di sama wasila nga koy naan ab nen la yow doo nen prématuré nga dégg préma ci tuuti doo ci dara munoo jaxase nit ñi chiite ah, yi ak société musulman bi mukk ci àdduna tuuti ngeen ci trop trop trop dégg ngeen baaba jen dal ne xadiis boobu noonu nan lay mun a nekkee que nan lay mun a juñcee que imaam Ali moo waroon succédé yonente bi gannaawam et pourtant xam nañ ne kii nga xam ne moom mooy Seydina Haarun moom dafa dal di génn àdduna avant yonente yàlla Muusa donc loolu nan la war a mun a nekkee hunaka ixtilaafun bayna al mushabbah wal mushabbahu bihi fii am na différence entre ki ñuy nuroo ki ku ñuy ak ki ñuy nuroole dañoo bëgg a wax ne tolluwaayu imaam ali ci yonente bi dafa mel ni dayo ak tolluwaayu haaruna ci muusa et pourtant ñun xam nañ ne ñun siit ñi dañoo ne lii xilaafa lay juncu ñoom wahabit yi ñu daal di def istisqal ñu bu fekkee xilaafa lay juncu yonente yàlla haaruna ndaxam moom du moom moo njëkk a génn àdduna Muusa wala Muusa ko njëkk a génn àdduna te ñun ñëpp xam nañ ne yonente yàlla haaruna moo njëkk a génn Muusa àdduna alayhim assalaam léegi pour del dañuy daal di njëkk a wax hadisul manzila bi ci imam ali rek rek rek la ñëw ñëwul ci keneen amul kenn koo xam ne ci sahaaba yonente bi nee na ko anta minni bi manzilatu haaruna min muusa kodul imam ali loolu dafa dal baax ma incarné ko dal eh, dafa dal di baax ñu ñu encadré ko dal di ko xamle nit ñi xam ne lii ci imam ali rek la ñëw ñëwul ci keneen bu ñëwee ci keneen ngeen wax ñu kan la yonente bi wax anta min nii bi manzilati haruna min muusa illa annahu la nabiyya ba'di kudul imam ali bu nekkee rek loolu am na ngeen wax ñu ko loolu benn beneen bi moy téere yëpp téere jullit ñëpp dal dinañu d'accord ci weru hadis boobu noonu dégg ngeen hadis boobu noonu nag kañ la am moo ngi am gannaaw bi nga xamante ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ngi dem ci xare tabuuka xare boobu ñuy wax tabuuk mu dal moom yonente bi gannaaw bu fa doon dem mu dal di digle kii nga xam ne mooy imaam ali alayhi salaam na doon ab xalifaam ci fan ci Médine muy garde njaboot ñi di garde soxna yi di garde ñi nga xamante ne ñoo desoon Médine te demuñu ci geer bi gannaaw loolu ñi nga xamante ne ce sont des hypocrites parmi les compagnons ci ci biir sahaaba yi amoon na ci ay naaf munaafiqin ñooñu noonu nag commencé dal di xibaar jooju nga xam ne yonente bi dafa dal di ne imaam Ali desal ci Médine nga daldi ma sàmmal sama njaboot ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa def hypocrite yi dal di wax loolu ñu commencé di jaxase xelu nit ñi di naan peut-être lokkaloo bu amoon diggante yonente bi ak imaam Ali commencé naa wàññeegu looloo tax yonente bi jëlul imam ali bi yoon ànd ak moom ci tabuuk peut loolu moom moo commencé wàññeegu moo tax yonente bi bàyyi ko foofu noonu loolu nag waxu naafiq yooyu noonu dal di yegg ci nopp ali imam ali alayhi salaam dal di ko mettitlu imam ali waaxu def ay jéegoom jël fasam dal di dem ci yonente bi dabi ji ko imam ali alayhi salaam dal di ko wax xew mu ne ah yonente bi nit ñi de waxee nañu ni loolu nu mu mën a nekkee gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pour fayul ko xamal ko ni dayo sa dayo moom moo ëpp dayo ñooñu di wax naafiq yooyu di wax hypocrite yooyu di wax yonente bi dal di ko tontul ni ko dem nekkul di naan ana kan moo ko wax yonente bi amul temps boobu moo ngi nekk dèjà yoonu xare mais yonente bi xam na lépp dèjà soxalowul ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ñu koy xamal déedéet allamani al alimul xabir dégg ki nga xamante ne mooy aji xam ak aji xarañ moom mooy xamal yonente bi saa ota muy laajte imam yonente bi daal di wax imam ali directement ama tarda ya ali yow imam ali ama tarda an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa illa annahu laa nubuwata baadi yeneen xadis ne laa nabiya baadi nafsu shi dégg ngeen mu daldi di ne yow imaam Ali ndax am nga daldi am wàccuwaay bi nga xamante ne moom la yonente yàlla Haarun alayhi salaam amoon ci yonente yàlla Muusa ndax am am wàccuwaay boobu ci man lu dul amoon na benn wàccuwaay bu yonente yàlla Haaruna amoon ci Muusa boobu moom mooy nubuwa boobu yow doo ko am te parce que lu tax yàlla suñu borom moom moo ko clôturé illa annahu la nabiya baadi lu dul ne aw la baadi nubuwa amatul sama ginnaaw après loolu na dal di seddal xolu imam ali loolu dal di seddal xolu imam ali waliw waliw rek koy dëgg nubuwa ñëpp mun nañ ko comprendre waaye imaamaa koy gën a comprendre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxee imaam ali alayhi salaam ñëpp dinañ ko dégg waaye ku koy gën a dégg am dégg-dégg bi bu baax ëpp imaam ali amul ndaxte moom mooy ki yàlla wax wa taiyaha uzunun waa'iya imaam ali alayhi salaam imaam ali kontaan xol bi sedd mu daal di dëpp dem madina bàyyi yonente bi mu daal di dem mu continuer mission léegi nag dañuy daal di waxtaane fii moy ñu laajte suñu bopp yan maqaama ak yan manzila la yonente yàlla haaruun alayhi salaam amoon ci yonente yàlla Moussa salaamullah alayhi yan dayo la yoroon moom wahaabiya bi di Baaba Jeng defane ne ñaari dayo rek la woon ñaari wàccuwaay rek la ñaari manzila mooy lan mooy manzilatul uxuwati wa nubuwa xaw ma manzilatul uxuwa wa nubuwa mu ne imaam Ali mu ne Haaruna li mu amoon wàccuwaay bu mu amoon ci Moussa mooy ñoom ñaar njaboot njaboot ji la ay famille lañu beneen bi mooy lan mooy ak nubuwa bi yonente yàlla Moussa yonente la Haarun alayhi salaam moom it yonente la dégg ngeen mu ne loolu kese la ma ne ko déedéet mbokk mi loolu ngay naan man manzilatul uxuwati boobu dafa am li ko jiitu lu tax liiroo aaya bi ba ngay naan euh, Haaruna axi mais avant yonente yàlla Moussa di wax Haaruna axi dafa am li mu wax ci ginnaawam avant ngay jot foofu noonu léegi nag man damay dal di ñëw wax leen yonente yàlla Moussa alayhi salaam haaruun wàccuwaay bu mu amoon ci moom ñeenti wàccuwaay la bu si njëkk mooy moom haaruun alayhi salaam yonente la ni yonente yàlla Muusa alayhi salaam nekk yonente bii mooy première wàccuwaay bii mooy première manzila wala boog martaba wala bokk maqaama bi nga xamante ne moom la haaruna amoon ci Muusa mooy haaruna yonente la yonente yàlla Muusa alayhi salaam moom it yonente la lii bu ñu demee ci mantiq ci nisabul arba dañuy naan an nisbatu baynahuma huwa tataawi ñaar yi ni yëpp benn la kii nubuwa wala kii nubuwa ñoom ñaar tolloo nañ ci ñaareel manzila bi mooy haaruna alayhi salaam moom moo nekkoon ministre ak bras droit yonente yàlla Muusa alayhi salaam waaw loolu li koy firndeel mooy lan mooy yàlla suñu borom dafa ne wa yonente yàlla Moussa yàlla suñu borom dafa ne waxee ko si làmmiñ yonente yàlla Moussa waj'al li waziran min ahli yow yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan nga andil ma kenn si sama njaboot koo xamante ne mooy doon sama ministre doon sama bras droit yàlla suñu borom daal di ko ko defaral Haaruna donc ñaareel dayo bi ñaareel wàccuwaay bi nga xamante ne moom la Haaruna am ci muusa mooy lan mooy al wizaara wal musaada mooy ministère ak ndimbal donc bii mooy ñaareel bi ñetteel bi moy lan mooy moom yonente yàlla Muusa alayhi salaam Haarun alayhi salaam moo doonoon wéeruwaayam yonente yàlla Muusa bu demee ba jaaxle bu demee ba sonn ki mu doon def istishaara dal dellu ci moom daldi di jël boppam weer ko ci boppam dal di ne doom man nii ak nii la mbir yi amee lan nga ci wax ku nekkoon wéeruwaayam dimbali waayam tamit mooy yonente yàlla Haarun loolu li koy firndeel mooy yàlla dafa ne washdud bihi azri dégg su ma demee ba am ay difficulté ay muskila nan ba dimbalee ci kii nga xamante ne mooy Haarun alayhi donc bii mooy ñetteel martaba bi wala manzila wala maqaama yépp benn la ci langage u arab dégg ngeen bi mooy lan yonente yàlla haaruna alayhi salaam keroog bi nga xam ne yonente yàlla muusa alayhi salaam yàlla dal di dina ko wax ne na dem fale ci waadil muqaddasi tuwa na dal di dem si tuuru sayna boo leen jàngee suuratul muminuun suuratul qasas suuratu euh, suma juumul taaha suurat yi yëpp dañuy dal lii nga xamante ne moom mooy histoire bii nii nga xamante mooy histoire yonent yàlla Moussa salaamullah alayhi surtout suuratul qasas bañ na ko ba suura bi dafa dal di tudd al qasas les histoires nettali dégg ngeen yonent yàlla Moussa bi keroog bi mu demee foofu di gis ak boromam ci tuuru Sayna ana kan moo ko représenté woon ana kan moo ko wuttu woon instant boobu noonu gannaawam du kenn ku dul yonente yàlla haaruun alayhi salaam donc bii moom mooy loolu li koy firndeel lan la yonente yàlla Muusa alayhi salaam yàlla dafa wax ci làmmiñam ni wa qaala Muusa li axiihi haaruun axlufnii fii qawmi yonente yàlla Muusa alayhi salaam bi mu demee bay dal di dem di gis ak boromam si tuuru Sayna mu dal di wax ki nga xamante ne mooy haaruuna axlufnii fii qawmi wuttuma si sama njaboot ji si sama nit ñi si sama gaa yi lan ma leen wuttu remplacer ma fi ba keroog may ñëwaat dégg ngeen donc dañuy dal di xam ne fii que imaam ali alayhi salaam am na mboole maqama yi nga xam ne moom la yonente yàlla haaruna amoon lu dul benn mooy nubuwa imaam ali alayhi salaam waxal ci moom lu nekk ci maqaama yooyu waaye nag du nabi du yonent mukk ci àdduna lii rek dafay dal di feddali yeneen nit ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla gëmuñu dara seen bopp rek la ñu xam ak alal yi àdduna di ñu wax ñun siit ñi dañoo wax imaam Ali moom moo waroon nekk yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy xaatamul anbiya yi amul beneen yonente buy am ginnaawam imaam Ali waliwam la naasiruwam la léppam la bras droitam la dégg mooy xalifaam bada nabi ñun loolu lañ gëm ci moom donc imam ali maqaama yi nga xam ne moom la haaruna amoon ci muusa makaama bu si njëkk wax naa leen ko mooy moom haarun euh, kiiwam la woon ministre am la woon moom haarun euh, jàpp moo doon dimbal yonent yàlla muusa moom haarun moo wuttu woon yonent yàlla muusa keroog bu yonent yàlla muusa demee di gis ak boromam si tuuru sayna moom euh, donc maqaama ñetti maqaama yooyu noonu yépp imam ali moom na ko mais ñenteel maqaama bi boobu la imaam Ali nekkul mooy lan nubuwa imaam Ali du yonent mukk ci àdduna dégg donc lii dafay dal di wane ne imaam Ali alayhi salaam moom moo war a nekk xil xalifa yonente bi gannaaw bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa jóge na fi soit daf fiy jóge fekk moo ngi dund mu daal di dem beneen bërëb wala déedéet gannaaw bi nga ne comme comme que nit ku ñam dund dina ñam dee kullu nafsin zaiqatul mawti kiroog bi ko bi nga xamante ne yàlla suñu nan nam mun a dal di jël alhabibul mustafa sallallahu alayhi wa ali mu dal di dem ci yàlla suñu borom wuyu ki nga xamante ne moom mooy habibuhu di di yàlla suñu borom bés boobu tamit gannaawam imam ali alayhi salaam moo ko war a wut dégg ngeen moom moo ko war a wut léegi nag question bi dal di ñëw laajte question bi nga xam ne waxabit bi loolu lay wax mu dal di ñëw nag imposé wu fi maanaam bu fekkente ne imaam ali alayhi salaam li ngeen jublu ci hadis bi mooy moom mooy wasi yu yonente bi mooy xalifa yonente bi gannaawam et pourtant xam nañ ne haaruna moo njëkk a génn isa moo njëkk a yonente yàlla muusa aduna loolu nu mu mën a nekkee ñun luñ leen tontu c'est très simple yonente yàlla yonente yàlla Muhammad lim fo bëggoon leeral lu simple la mooy dayo yi nga xam ne Haaruna amoon na ko ci yonente yàlla Muusa lu dul nubuwa dayo yooyu yëpp yonente yàlla euh, kii imaam Ali alayhi salaam am na ko imaam Ali alayhi salaam am na ko lu dul li nga xam ne moom mooy laa nubuwata baadi léegi kii nga xamante ne dafa bëgg wax ne hadis bi pour mu wër pour mu wër il fallait que mu doon li nga xamante ne maanaam pour mu wér si selon con euh, compréhension chiite yi mooy il faut que xilaafa boobu nga xamante ne moom la imam ali alayhi salaam daal di doon yonente bi moy mu daal di doon keroog bi nga xamante ne moo ngi dem Tabuk mais bu delloosee rek kon xilaafa bi jeex na comme ni ko Baba wax waxaa bi waxee demeewul noonu bu nekkoon noonu la demee istisna bi nga xam ne moom la yonente bi daal di wax ci hadis boobu noonu bu nekkee li nga wax loolu la donc istisna bi du am njëriñ yonente bi dafa ne anta minni bi manzilati haaruna min moussa yem na ko déedéet illa annahu la nabiya ba'di la nabiya ba'di loolu lu moy tekki mooy bu keroog bu yonente bi di dund walla keroog bu yonente bi génnee aduna xam ngeen bu baax bu yonente bi génnee aduna si la nabiya ba'di dooga mun a am ah donc imaam Ali alayhi salaam yonente bi lu mu si jublu du lenn lu dul ne imaam Ali yaay sama xalifa sama ginnaaw doo nabiyu de doo doon beneen nabiyu de bu munoon am nabiyu da ngay doon nabi waaye comme que amul nag xalifa ngay doon nabiyu bu amoon moom ngay doon waaye comme que amul xalifa ngay doon illa annahu la nabiya baadi xam ngeen ne lii nii leer na nañ ci liy wone tàppale bi nga xam ne moom la baaba Dieng doon tàppale ci hadis bi léegi dañuy dal di ñëw mbokk yi ma dal di leen tey du ma leen nekk di dugal ci ay téere yu bëri parce que waxaabit yi boo leen toppee parce que duñu jàng waykat bi dafa ne law daraytum ma rawaytum lahtadaytum ay boolen leen xamoon li ngeen di riwaaya wallahi di ngeen jub xam kan mooy imaam ali alayhi salaam imaam ali alayhi salaam du kenn gannaaw rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ma nekk fii di wax ay vertu am yu bari bis dina ñëw ñu dal di ko wax mais damay nekk rek tontu li nga xam ne moom la waxaabit bi wax léegi nga ñëw ci téere boobu dal di tudd at tanwir di charhul jaamiu saxiir ki ko bind di al allaama muhammad ibn ismail al amiru sanaani ñu gën ko xamee al amiru sanaani moom allaama sanaani ci téeréem boobu di tanwir charhul jaami ustahir ci al mujalladu saabi moo ngi foo wax naan gis nga mu daldi di ñëw mu ne aliyun min ni ci page trois cent trente sept mujalladu saabi page trois cent trente sept al allaama sanaani dal di ne te boroomi bu mag la ci ahlu sunnati wal jamaa mu ne yonente bi dafa ne aliyun minni bi manzilati haaruna min muusa wàccuwaayu imaam ali ci man dafa mel ni wàccuwaayu haaruna ci muusa alayhim assalaam lu dul ne amul beneen prophète buy am sama gannaaw illa annahu la nabiya baadi mu ne moom allama sanaani di nettali ci téere boobu page trois cent trente-sept mu ne illa mu daldi ne qaala al qurtubi qurtubi nee na wa gayruhu ak keneen ku dul qurtubi mu ne nafa al ittisaala bihi min jihati nubuwa nee na jokkale bi yonente bi jal di jokkale ak ali ab lépp am na lu dul nubuwa lu dul euh, la prophétie mu ne nag fa baqiya min jihatil xilaafa léegi nag mu daal di def si côté xilaafa bi li annaha tali nubuwata fi rutba amiru sanaani di nettali ay waxu qurtubi ak ñeneen ci téeréem bi mu daal di ne ñoom nee nañu comme bi nga xamante ne yonente bi daal dina ko defee tashbih ci haaruna imam ali mu daal di ko def tasbih ci haarun côté nubuwa bi moom loolu daal dina dem parce que amul nubuwa gannaaw yonent bi waa nag léegi day def xilaafa parce que xilaafa moom mooy topp nudu nubuwa ci rutba dégg ngeen summa innaha muhtamala an takuna fi hayatihi mu ne peut-être boobu noonu mun nañ ne ci dundam lay doon wala gannaaw bi nga xamante ne génn na àdduna dégg mu moom bi mu ne parce que Haarun dafa gaal di génn àdduna avant Moussa ci lu toll ni quarante ans dégg ngeen loolu nag moom mu dal di euh, firndaleel boppam foofu Qurtubi dal di waxal boppam mu ne lii li muy wone mooy donc xilaafa boobu yonente bi doon jublu foofu mooy ci dundam kese waaye du si gannaaw du gannaaw gennam àdduna maanaam xilaafa bu ñu fa jublu mooy gannaaw bi nga xamante ne yonente bi dem na fii nga xam ne mooy Tabuk instant boobu imaam Ali moo ko na loolu kese lañ si jublu ci hadis bi léegi déglu leen iskaal bi nga xam ne moom la bi andi al amiru sanaani ci téeram bii di at tanwir fi charhi l jaamii saxir ci mujalladu saabi page 337 déglu leen lu amiru sanaani daal di tontu Qurtubi ak ay ñoñam lu si mel ni ñoom euh, Baba Dieng ak scénario Tom et Jerry al amiru sanaani tontu leen ci même page bi mu ne qultu dama leen di ne yaxfa أن أن لو عاش هارون لكان خليفة موسى خليفة موسى كما عاش علي بعده mu ne xam ngeen ne bu baax bu yonente yàlla Haaruna dundoon après yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy doon xalif euh, euh, bu dundoon après yonente yàlla Muusa Haaruna bu dundoon après yonente yàlla Muusa lii al amiru sanaani moo leen di koy tontu mu haarun moo doon nekk xalifa bi mu ne naka noonu imam ali alayhi salaam dafa dund gannaaw yonente bi donc imam ali moo nekk xilaaf ci bi mbokk yi mu gën ko leeralaat ci même téere bi ci suuf ci même bi 337 mu dal di wax ne mu ne ali yonente bi waxaat na ci benen kaddu mu ne ali ibnu abi talib mawla man kuntu mawlaahu mu ne imaam ali alayhi salaam mooy sàng képp koo xamante ne maa di sàngam dégg ngeen bu wér la ñu jëlee ko ci ibnu abbas hadith bu jëlee nañ ko ci ñu bëri hadith bu wér wér bu bu ko gën a wér amul parce que loolu yàgg naa ko wax hadithul gadir bi ko gën a wér ci hadith amul ndax tawaatur bu mu def kenn amul benn hadith bu ko defee noonu tawaatur mu daal di ne fii mu ne ali ibnu abi talib mawla man kuntu mawlaahu mu ne bu ñu xoolee lan mooy mawlaa man kuntu mawlaahu jubluwaay bi lan la mu ne bal zahiruhu moom al amiru sanaani ci même téere bi ci même mujallad bi mu ne zahiru wax bii nii lu muy tekki lan la mu ne bal zahiruhu anna al muraada anna ma sabata lii min al wilaaya fa huwa li aliyin alayhi salaam illa ma xassahu li ixtifaasi nubuwa allah mu ne lii lu fiy feeñ lan la mooy lépp li nga xam ne moom moo dal di sax ci man man yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ay mbir ci lépp lu war li nga maanaam ci topp ma ci déggal ma ci nangul ma ci ànd ak man lool yëpp dafay dal di sax ci imam ali loolu amiru sanaani moo koy nettali moom moo koy nettali de moom moo koy xamle de moo koy firi de mu ne lu dul li nga xam ne ma nubuwa yonente bi yonente la waaye imam ali du yonente waaye leneen lu dul nubuwa day saxal imam ali buñ ko waroon topp imam ali dañ ko war a topp moo ko war a wut moo ko war a sectari dégg ngeen ngeen ñëwaat ci même téere bi mbokk yi mais bii yoon ci beneen page la ci benn ci même téere boobu noonu ci beneen page ci beneen mujallad cinq mujalladu saabi la ngeen ñëwaat ci même téere bi at tanwir fi charhi al jaami al saghir bu al allaama muhammad ibnu ismail bu ñu gën a xamee al amiru sanaani ci même téere bi mbokk yi ci mujalladul ashir bi yoon page trois cent quatre-vingt-sept salaasumia wa sab'a wa samaaniin mu dal di ne man kuntu waliyuhu al amiru sanaani ba tey ci boroom xam-xam ahlu sunna wal jamaa mu ne man kuntu waliyuhu mu ne loolu lu muy tekki mooy lan mu ne awlaa bihi képp koo xam ne maa ko gën a yeyoo ci yépp maay jiitam maay sangam bi léppam mu daal di ko firee waxu yàlla bi annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonente yàlla muhammad moo gën moo gën a yeyoo ci jullit ñëpp ci seeni bopp dégg ngeen yonente bi bu ne kaay ma kaay nga dugg ci teen ci teen bi wala kaay nga dugg ci safara si da nga koo war a def parce que moom annabiyu awla bi ka lépp lu mu wax da nga ko war a def waaye yonente bi nag rahmatun lil alamin la du wax nit ñi loolu exemple la maanaam yonente bi ku ñu war a dégg déggal la dégglu te déggal ko dégg ngeen ne fa aliyun mooy imaam ali alayhi salaam waliyuhu mu ne lan mooy waliyuhu lan mooy fa aliyun waliyuhu mu ne awlaa bihi fi nafsihi maanaam yonente bi jox na imaam ali martaba bi mu joxoon boppam gannaaw bi nga xamante ne yonente bi mooy ki gën a yeyoo mbir yépp bés ba muy dund donc xam leen ne keroog muy génn àdduna imaam ali alayhi salaam moom mooy yore mbir yépp mooy yore cumbukaay yépp ci moom la ñépp war a dal di dellu dal di naanee ci moom walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an xadaqa si moom la ñu war a dem rootee moom imaam ali alayhi salaam mbokk yi ba tey al amiru sanaani ci même téere bi di at tanwir fi charhi l jaamii saxir mujalladul achir bi yoon ci page trois cent quatre vingt sept déglu leen bu baax trois cent quatre vingt sept ci hadis yi tàmbale xarful miim yi mu daal di continuer di firi hadis bi muy wax martaba bi nekk fii nii mu daal di ne wa rutabu hadihi alwilaya maanaam yonent bi mu ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu wala man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu mu ne nag rutabu wilaya yii nii laa tanxasiru maanaam martaba wilaya bi yonent bi daal di wax fii laa tanxasiru martaba bi munoo koo wax fii rek lay liggéey du liggéey fii maanaam kenn munu koo wërale laa tanxasiru si mantiq bu ñu ne laa tanxasiru qadiya maxsuura qadiya maxsuura xam nga moom la ñuy gën a waxee ci ilmul usul mooy euh, al ilmul ijmaahi al munxasiru fi cheyin ma mu daal di ne wilaaya bi yonente bi jox imam ali fii laa tanxasiru kenn munu koo wax fii la yëm déedéet amul fu mu yëm fa innahu يجب له من الحقوق على المسلمين أمور كثيرة في هذا الحديث moom al amiru san'aani daldi ne imaam ali alayhi salaam jullit yépp dañ koo war a déglu nangul ko ci mbir yu dul jeex ci li nga xamante ne moom la xadis bi di junj mu ne nag mbir yooyu bu si njëkk déglu leen bu baax al amiru sanaani ba tey mooy wax mu ne mbir yooyu noonu nag yu si njëkk mooy wal awwal bu si njëkk moy min ijaabi muwaalaatihi mooy dañoo war a nangul ba pare comme imam ali mooy suñu waliyu mooy dañ ko war a nangul gannaaw buñ ko nangulee mu ne wal inqiyaadu lahu waxuma nangu rek ci la meñ de ñu daldi ne bëreet dal di toppi imam ali alayhi salaam ijaabu lahu ñu nangul ko wilaayam wal inqiyaadu lahu gannaaw buñ ko nangulee si suñuy lammeñ ñu dal ko jëfee si suñuy cër maanaam ñun ñëpp ñu toppi imaam ali mu ne war rujuu ilayhi ñetteel bi mooy ci mbir yooyu nga xamante ne war ci imam ali mooy bu ñu demee ba jaaxle ba xamatuñu lu ñuy def nañu dellu ci moom imam ali donc gis ngeen al amiru sanaani moom delloo na nit ñëpp wax ni lii xadis bi wane du lenn lu dul ñëpp dañoo war a nangul wilayatu imam ali alayhi salaam et en même temps gannaaw bu ko nangoo dal di dellu ci moom gannaaw bu ñu delloo ci moom bu ñu ay mbir yoo xamante ne yu leen ute la bu ñu dem ci keneen lañ ko laajte ndax aliyun alamu sahaba moo gën a am xam-xam sa sahaba yi ana wa aliyun baabuha te bii xadis jàll sànq te mooy xadisul manzila gis ngeen xadis boobu lu muy wane yonente bi daal dina désigner imam ali xalifaam avant moo génn aduna keroog ba muy def xaswatu tabuuka waxaabiya yi nee nañu bu fekkente ne loolu dégg la donc xalifa boobu noonu mooy ci ngiru dundam ñun ñu ko bu fekkente ne ci ngiiru dundam la yonente bi jublu woon foofu kon lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu dal def istisna mu dal di ne illa annahu la nubuwata baadi aw illa annahu la nabiya baadi donc bu fekkoon ne li ngeen di wax xilaafa bi yonente bi lu mu si jublu mooy ci ngiiru dundam bi rek donc waxam bee du amati sens te nag attention waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du ñëwee ci ne la yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa sallallahu alayhi wa ali moo ne illa annahu la nubuwata baadi illa annahu la nabiya baadi lu dool ne amul beneen yonente bu ñëw sama ginnaaw waa ahan kañ waaye nag am na xalifa donc imam ali anta xalifati baadi ñëw na si yeneen yu dul jeex aliyun xalifati fiikum min baadi ñëw na si yeneen hadis yu dul jeex man man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu ah aqdaakum ali alamukum ali ah awfaakum ali asjaukum ali ci yu dul jeex ci côté yépp ci dono yépp ci lu ñuy jël ci yonente bi imam ali moo ci ëppale ñépp lu si njëkk nag mooy xilaafa bi yonente bi daal di ko désigné après gannaaw yonente bi mubaasharatan imam ali moom moo ko war a succédé amiru sanaani daal di feddali li si gën a mu ne dañ ko war a nangul mu nangul ko wilaayam et en même temps daal di bu ñu ko nangoo ñu ne bu rek topp ko daal di dellu ci moom ci lépp li nga xamante ne xamuñu ko dégg mu daldi wax lii mu daal di dellu ci moom ñun ñëpp loolu la ñu war a def gis nga waxaa biti dama leen di conseiller xam nga lan moo leen war li leen war du lenn lu dul ngeen bañ a wax ci vertu imam ali yi salaamullah parce que bés boo leen ci waxee da ngeen di këpp da ngeen di nërmeelu da ngeen di daanu daanu bu amul fenn gis ngeen imam ali alayhi salaam ni ko yooy woykat bi waxee rek xaw ma woykat bi la woon xaw ma waxkat bi dafa ne euh, halaka fiika isnaani ni ko yonente bi waxee loolu waxu yonente bi la mais dafa am beneen woykat bu mu wax wax bi moom moo ñëwatul sama bopp fu mu ne nii mu daal di ne ñu bari dal ñu bëgg imaam Ali am na ñoo xamante ne dañoo bëggoon imaam Ali mais bu ñu ko bëggoon du lenn lu dul naafiq am ñoo xamante ne dañ ko bañoon mais bañ dañu doon wone mbañeelam mais lu mbañeel buñ ko doon wone nekkul lenn lu dul def taqiya pour mucc ñeneen ñi nga xam ne saa bu ñu gisee ko bëgg imaam Ali dañ koy rey dégg ngeen damay fatte baat bi nan la ñëwee ci kii bi rek gis nga imaam Ali alayhi salaam da di koy jéem a nëbb muy gën a feeñ. ngeen jéem koo feeñal ngeen yàlla gën a yaatal seeni martaba ngeen jéem koo nëbbu yàlla gën leen woyofal yàlla gën leen bës ci suuf ngeen mel ni ay kuskondoron yéen wahabit yi dégg ngeen léegi nag lii laa leen di conseil mooy ngeen bàyyi lépp loo xamante ne da ngeen di jéem a jël hadis yi yonent bi wax ci imam ali te luy wone ne imam ali moo war a nekk succédé yonent bi gannaawam ngeen dal bàyyi wax ci yooyu xadis yooyu parce que gënalu leen lu mu dee dee na ngeen jël exemple ci kii nga xam ne mooy seen kilifa Ahmad ibnu Hanbal yow Baba Dieng jëlal exemple ci Ahmad ibnu Hanbal gis nga seen imam Ahmad ibnu Hanbal dafa dal dañ koo dal di musalaaki ci xadis bii nga xamante ne yow baaba Dieng tajarrata fi l qawli bihi dangaa def osé pour wax jéem koo wàccee wax ne xilaafa bi nekkul xilaafa lañ fa jublu osé nga wax loolu te sa imam bi ahmad ibnu hanbal mus nañ koo laa ci bi lu siy gis-gisam ahmad ibnu hanbal moom ci boppam dafa ragal a wax ci hadis bi parce que moom xam na li nekk ci hadis bi waaye bés bu ko waxee ñëpp bàyyi leen ñu daal di topp imam ali topp ahlul bayt parce que ahmad ibnu hanbal du yonente bi moo ko désigné du yàllaa ko désigné du kenn ci ñi nga parce que ñii ñii la ñu am quran ak sunna du yonent bi moo ne topp leen ahmad ibn hanbal du yàlla suñu borom moo bind ci alquran ne topp leen ahmad ibn hanbal ak mboolem ñi nga xamante ne mooy giiru mazahib yi ngeen xam du waajib lii wujub mooy topp ahlul bayti léegi nag wujubu topp ahlul bayti hadis bi bokk na si lu koy junje mooy anta minni bi manzilati haaruna min muusa gannaaw nag bi nga xamante ne laajkat bi laajte na ahmad ibnu hanbal lan mooy gisam ak euh, compréhension ci hadis bi ahmad ibnu hanbal il a préféré d'être euh, dafa préféré nappi parce que xam na bu baax bu siy dugg rek di wax naka sudul noonu day daaneel boppam donc mu nappi moo gën donc lu ma leen di conseiller yéen ñi nga xam ne yéenay wahabit yi boo leen di wax ci vertu imam ali ngir yàlla nappi leen ngeen jël exemple ci Ahmad ibn Hanbal moom dafa ragal wax hadis boobu noonu parce que boo leen ñëwee ci téere boobu tudd al ja kii al jamiul ulum jamiul ulum lil imam Ahmad ibn Hanbal moom si page quatre cent dix neuf gannaaw loolu buñ ko laajee ñu ne ko is tafsiru hadha al hadis lan mooy tafsiru hadis bi Ahmad ibn Hanbal ne uskut an hadha ay yow mii may laajte nappil ci hadis bi bul wax dégg nga uskut na nga al laa tasal anza alxabar kam mu ne bul laajte ci hadis bi bàyyil hadis bi nu mu ñëwee ahmad ibnu hambal nangul wax ci hadis bi te faqih la <laughs> faqih la mais lu tax nanguwu ci wax loolu lu jaralaate la ñun nag ñu ne nanguwu ci wax parce que mënul wax contraire bi bu ñëwoon di wax naan du xilaafa la yonente bi fa jublu dafay daanal boppam ndaxte yonente dafa ne illa annahu la nabiyya baat donc xilaafa la fa yonente bi jublu bu ñëwee wax ne kon mu daal di ñu déggal ne yonente bi xilaafa la fa jublu donc daaneel na mboolem li nga xamante ne moom mooy mabaaniyoom ak ay ususam donc mu nappi ci moo gën yéen waxaabiti yéen ngeen nappi ci moo gën lii nag du samay wax ba tey ci téeréem la ñu daal di ko laajte mu ne nappil ci hadith bu si wax dégg ngeen mu ne laa takallam fi hada da il haditha kama jaa bul wax ci lii yow laatekat bi bàyyil hadith bi comme na mu ñëwee rek dégg ngeen hadith bu wér la ci ko téere yépp daal na ñëw dégg ngeen bis sax ci même téere bi boo leen ñëwee kenn da koo dal abu bakrin wa umar wa usman mu dal di ko ne qaala abdullah abdullah nee na xaddasa abi bi xadiisi safina fa qultu yaa aba yow sama papa maa taqulu fi tafdil lan ngay wax ci gëneel maanaam selon ñoom lan lan moo kan moo gën si saxaaba yi ah papa daal di ko tontu ci lu mu xam mu ne fil xilaafa ci xilaafa bi abu bakrin wa umar wa usman abu bakr ak umar ak usman fa qultu mu daal di ko ne fa ali ibnu abi talib imam ali nag foo ko bàyyi daal di ko ne yaa bunayya ay yow sama doom ali ibnu abi talib imam ali alayhi salaam di doomu abi min ahli baytin laa yuqaasu bihim ahad ah sama doom su ma la nee Aboubacry moo gën jàppalu rek nga na fi waaye imaam Ali dafa bokk si ñi nga xam ni kenn du ko nattable keneen te mbokk yi tafdil buy am nag dañoo war a nattable nit kenn keneen ki donc imaam Ali kenn du ko nattable Aboubacrin ak Umar ak Ousmane lu tax du seeni maas loolu moom mooy dëgg-dëgg wax ji min ahli baytin dafa bokk ci waa kër joo xam ne laa yuqaasu bihim ahad kenn warul jël kenn ah ci ci waa kër googu di ko nuróole ak keneen wala di ko comparer ak keneen c'est pas normal donc sama doom laate ma si ñeenee seen diggante mun naa comparer waaye imam ali ak ñoom ma comparer munul nekk innahu naka moom imam ali min ahli baytin dafa bokk ci waa kër joo xam ne laa yuqaasu bihim ahad kenn du leen nattable ak keneen allahuma salli ala amiri almuminin abdika wa wasiyik wa xalifati rasulika xaqan xaqa allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad ca yàlla imam ali du moroom sahaaba yi dee leen wax ci moom lu baax wala ngeen nappi ci même téere bi ci même page bi quatre cent dix-neuf mu dal di waxaat ni si jaamiu ulum li bu imam ahmad ibn hanbal mu ne maali ahadin min as-sahaba amul kenn si sahaaba yi koo xamante ne am na ci ay ngëneel min alfadaili bil asanidi siha yu ñëw ci ay as isnaad yu wër ci ay narration yu wër yu authentique mislu ma li ali lu su ni ci imam ali alayhi salaam waaye yenn yi si des yëpp boo xoolee gis nga benn ngeneelu imam ali duñ ko pees ak eh, ak yeneen ñu si def yéen wahaabi yee boo neen mënul wax si ngeneel imam ali yi comme ni ko yonent bi waxee ngeen bàyyee ko noonu ngir yàlla te yàlla tax na ngeen ci nappi ngeen jël exemple si seeni imam ahmad ibnu hanbal donc ñun lii lañu amoon lii nga xamante ne moom lañ leen di andil tey dal di wone nar ak kacc ak tappale yi nga xam ne moom la scénario Baba Dieng eh, scénario Tom et Jerry di Baba Dieng ak naataangoom boobu daal di nekk di wax ci kaw chiit ñi ma leen di laajte nag ab laaj avant maa dem bu nekkoon hadis bii nii ci yeneen xulafaa yi la daal di wàcc ku dul imaam ali yéen seen taxawaay ci loolu lan la waroon nekk hada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli wa sallim ala talaati alxaqi bilxaqi alkanzi alazam ifadatika minka ilayka ihaatati nnuuri almutalsam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tuarrifuna biha iyah